asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 29 octobre 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglekaay yi yëglekaay yi nag moo xam sunu làmb la la tribune yëglekaay bi nga xam ne ni moo di record wala l'observateur ku ci nekk rek. tey génn nga ñëw wax wala sax ba fii nga xam ne nii moom moo di ca Lutte TV ku nekk tey daal am na foo xëy ñëw fi koy njëkkee nag moom moo di fi nga xam ne moo di sunu làmb sunu làmb nag moom kanu fa xëy gis mooy Modou Lo boo xam ne day mu nga yorub kaanam di feccum feccam waaye kay wax nag mooy président écrim ba di Xaadim Gajaga Xaadim Gajaga daal la mu xëy wax moom nee na kii di Biram ñun day daf noo yàpp Biram daal li tax respecté wuñu la nu tax xam parce que écrit la nu yor écrit ba am nu muy doxe ay kilifa am ñu ko seere kon balaa jël benn décision di lijjanti lenn war nañu mën a wax ak ñun ñu toog ñun ñu ko sëpp ñu waxtaan waaye daal moom jàpp na ne daal kon Modou Lo bii moom bu ah, ni ñu ko yaakaare mën na ne bañ a demee ndax xaadim daal doxalinu biram woowee moom moom la xëy di ko ñaawlu ndax daa jàpp ne loolu muy def day tegu ko ci aw yoon te it di xam ne nii lu mu war a def la ndax nag lees ci mën a dégg olof moo koy wax xaadim da nga wax ko nee na daal yéen ko ti xëddeen dañuy yëgoo balaa ñoo yëkkati mu mel ni daal kon na biram di doxale ca combat ba moom moo neexul ñi nga xam ne nii day ñoo di waarok énergie ba tey xaalim gajaga buñ demee fekk ko ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record mu nga fay wax de nee na biram ñi daal respecté ñu na nga koo war a def weet na dong nga war a def looy def ci mbirum làmb nga wax ko ak ñun rawatina lu jëm ci écrit bi nga xam ne ñun ñoo ko yore mu warok énergie waaye xëye ca làng ga rek xëy daal na encaissé nga sa kase wala déggoo nga ak promoteur sans bi xaalim ne na loolu du jàll tey nag nekkul loo xam ne luy mën a nekk la mu mel ni ki combat boobu moom fi mu nekk nii coow la bëri na ca bu baax a baax a baax diggante Ama Baldé ak ki nga xam ne moo di Modou Lo mel ni ki Modou moom mu mel ni fi mu nekk nii daa mel ni cent cinquante millions daal la nar a ci jibaam ci poosam Ama Baldé itam moo tax jamono jooja muy laaj moom itam kase bu yegg bu kawee kawee kawe mel ni ki fi mu nekk nii day mbir ma moom coow laa nga ca mel ni tulli ak mal leneen loo xam ne ba tey mu nga ca combat booba ñu ñëw ci fii nga xam ne nii day moo di l'observateur l'Obs moom la mënu xëy xamal nee na li leer ba leer benn komba ñetti mbër nee loolu daal moo am ci combat bi ndax nag combat bi fi nekk nii coow la bëri na ci mel ni tafaatin ñëw na dugg ci biir de wala boog ñu ngi koy ngir bu Ama Baldé nanguwut mu jël place moo tax yëglikaay bi nekk benn combat ñetti mbër yëglikaay baa ko wax bu ñu demee ca Lutte TV ba tey Jules Baldé moom mu ngi fay attaqué kii nga xam ne nii moo di Modou di dal ca koom bu baax baax ak waa écrim yëglikaay ba wala site internet ba moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu ci ab vidéo waaye xam ne tamit gis nañ ko mu di démentir ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu lamb wala Leewtoo point net Pape Thialis Faye danoo xëy gis tey ci sunu lamb yëglikaay bi bind day mu ngay négocier diggante Boy Niang ak kii nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 waaye loolu nag ba mu amee ci xalima ak Boubacar Niang moo ko bind ca Leewtoo point net Pape Thialis bàyyi mu sedd de nee na négocier wul tey combat wax waxi noppi tey nag bu ko ko kenn waxal jéemul te négocier combat fi mu nekk nii ndax nee ñooy négocier combat muy Max Mbargane ci Leewtoo point production nee na fi mu nekk nii toogaguñu waxtaan ba mu négocier loo kenn benn combat moo tax daal kon loola moom na ko suñu lamb bi ne ni ñu ngi koy négocier te Pape sa koy def muy a muy Boy Niang ak ki nga xam ne moo di Balla Pape Thialis moom dindi na loola ba mu set wecc wecc wecc waaye keneen koo xam ne moom la tribune daa ñëw ci moom mooy Gris Bordeaux moom ne nañ day bu Modou Lo ak Ama amee moom mooy nekk koo xam ne ni day ku ciy perte lay doon yëglikaay ba moo xëy wax nu ko waaye ñu jóge foofu ba tey dem fa nga xam ne mooy yëmbal mare yëglikaay ñu ne yëmbal mare day neuf combat la ñu def neuf victoire wala boog cinq victoire ak quatre defet maanaam juróom-ñeenti combat yi ñu am daal am nañ ci ak ñeenti li nga xam ne moo di ay defet moo tax yëglikaay bi jàpp ni day yëmbal mara kon tout intérêt kon rek mu suux ñi nga xam ne moom dañoo bëggul a suux ndax nag dañoo jóge géej ga wala ñu dëkk ak moom mooy waa sumbi jun moo tax daal ñu jël ay décision ci seen écrit ba yëglikaay bi na li leer ba leer nag recruter la ñu jël recruter bu mag a mag di ab entraîneur que ñu jël nag sunu laam ne nag jël du kenn ku dul kii nga xam ne nii moo di nag mbalax ma nga xam ne nekkoon na ci écrit face moom daal la ñu xool ne ko yaanu doy kaay entraîné ñu suñu ay mbër ba pare nag teg ay condition condition yi mooy mbëri fi mu nekk nii dañoo nar di cotiser ay mille francs waaye nag ba ñu defee loola am na koo xam ne moo fa nekkoon di leen entraîné moom daal boo bëggee dëgg-dëgg yëglikaay bi nee na dàq nañ ko muy maawoo ma nga xam ne nag moo doon ba di la entraîné waaye daa mel ni loola ndax du fa indi li nga xam ne moo di ay jeexi jaaxa waaye loo ci mën a dégg daal jàppal ne kon li leer ba leer daal léegi moom entraîneur Soumbédioune ki nga xam ne nii moo di ma Mbalax la nu koy wax waaye nag li nga xam ne nii nag moo di lamb simple ja ca la nuy dem bu ñu demee fa nga xam ne moo di ca record record moom nee na ki nga xam ne moom mooy Moussa Diop ñu koy wax Coriace wala Serigne Ndiaye numéro 2 nee na moom day bindu na histoire ci lamb Sénégal ndax nag a am moo fa dem gagné mi nga xam ne mooy Serigne Ndiaye numéro 2 dans général mu mel li simple ja jaxoon na sa ji ñu génn waaye dimanche ji ñu jëm ci lay gën a jax ndax mbingaan mi nga xam ne nii moom moo di mbingaan sañ moom nag teg na un million ci Adrien Senghor waaye jamono jam koy def ca garaayof ca biir garaayof moom jax si ne ni kon ma xuy kaar kase wala loo am waaye ku ci wuuru sa bopp a ci des ndax nag jàppal biir garaayof million gaal ga deux millions cinq cent yàgg maar ndax mën ngaa bëre est ce que duma la ngemb dimanche mu dem ndax ñu naru bokk yàgg wax ji métti na de yàgg maar mbokk waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon ci revue de l'arène bi ñu maa ngi lay nuyu di la ziar. ndeykum ba maa ngi lay fay di la delloo ziar ah, di nuyu ñëpp ñu ñu suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën nekk ci àddina bi rek di leen nuyu di ñaanal ñëpp jàmm di ko saako ci moom di leen baalu àqate di leen baal di ñaan yàlla defal ñu jàmm daal. amin Amine ni ñëw nag si jàngatu journaux yi nga xam ne ñoom noo bind tey lamb mi euh, sunu lamb ak record euh, Leewtoo point net ak li nga xam ni mooy observateur ñu tàmbale ko nag si sunu lamb sunu lamb tey dafa xëy indi benn coow boo xam daal mi ngi waaj am fee wala boo commencé na am fee nga xam ne mooy écurie Rock Énergie Khadim ga daal nee na daal combat bu Modou Lo ak Ama Baldé sut suñ su fekkee ne que Birame ñi nga euh, ñëwul renouveler joxuñu ko acquittation pour mu renouveler licence am combat boobu du am. waaw loolu day coow la parce que nag Khadim actuellement c'est le président de l'écrit yaakaar naa ne am ak lu mën di xew bu fekkee am na lu ñuy négocier wala lu ñu war a wax wala lu ñu war a def yaakaar naa ne bu fekkente ne dañuy wax ci wàllum kilifteef comme moom mooy président bi loolu lépp moom moom muy biram ñu ak membre écrit bi yëpp war nañu toog ñu waxtaan. ci lépp loo xam ne ni moom la ñu war a def moo xam mbër muy am combat la moo xam mut loola wala mbër moo nga xam ne sax kaseem cent mille francs la door a bëre waaw parce tamit mbër yëpp licence lañ yor te defe ñoo yem lu ñuy fay pour am licence bi kenn ëppalewul sa morom looy fay moo xam mbëru cent mille ak mbëru deux cent mille kon li am solo daal nañu waxtaan parce que yaakaar naa ne biram ñu ngi foog naa ci sama xalaat moom nit la bi nga xam ne yaakaar naa warul bañ waxtaan woowu xaadim nga jege itam yaakaar naa ne warul bañ du du bañ loolu kon comme ñoo seq mbir mi nag te ñoom ñëpp li ñu bëgg mooy lu avancé la Rock Énergie te xaadim c'est le président biram moom mooy pare wu Modou Lo di ko gérer ci lu bare bare bare bëri rawatina côté finance am ak yu mel ni ki noonu ak yenn contrat parce que c'est le manager kon tamit loolu écrit bi bu affilié moom moo am licence ak li nga xam ne moom mooy kay yi koy may mu mën a am combat loolu yëpp waxtaan ko indi parce que li may wax rek ndey kumba mbir mu mën a doon waxtaane ko balaa ñu cay def dara dafay ëpp solo quoi. record tamit mi ngi xamal si xalima Abou Nour nee ñu euh, ki nga xam ne sax mooy Ibou Diouf di mag si murlo combat boobu sax yëgu ko te nee na ñoom noo ñëw wax euh, jooy jàmbat boobu si si si kanamam kii di xam ne mooy président bi euh, Khadim Gadiaga. waaw loolu moom bu amee moom dina doy waar parce que Ibou Diouf c'est moom itam ci directeur technique de l'écrit ba pare bokk ak Modou Lo way jur yaa ngi dégg di magam kon yaakaar naa ne bu Modou mënee am combat wala ñu négocier combat bañ ne déggoo nañu promoteur bi te yëgu ko ah loolu bu dee amee na noonu ñu ko waxee dina xaw a doy waar parce que itam nag yaakaar naa ne olof ne na ginnaaw bukki mbaar te yaakaar naa ne Modou bu dee bukki Ibou juuf mooy mbaaram parce que mooy magam yaa ngi dégg te itam defe naa ci côté bi mu yëngatu am na lu baree bare loo xam ne encadré na ko ci ba fi mu nekk nii tey kon daal li am solo mooy la ma waxoon phase wax ko feneen rek nañu waxtaan. nañu waxtaan ku nekk li may wax chaque jour ku ne ci fa mu nekk moo xam fa muy liggéey la moo xam la mu gérer la cër ba mu moom te man ko di ko doxal nañ ko ko bàyyi mu doxal ko na ko war a doxale su ko defee pour man problème du bëri daal Babacar journal sunu lamb te aussi mi ngi xamal ne ki nga xam ne mooy Pape Thialis Faye mi ngi dox combat euh, diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Boy Niang 2 ah waaw loolu sunu lamb lañ xëy jàngate ko ah bu dee loo am la itam ah maanaam dañ naan alhamdu ndax li tax mooy Pape Thialis Faye fi mu ne sénégalais yaa ngi réclamé retouram ci làmb ji parce que gisoon nañ ko mu ñëw def fi saison bu feu flamme kon defe naa ne tey bu ñëw mu ngi négocier diggante Balla ak Boy Niang ah ñu yónni yàgg ba xam ndax loolu c'est vrai wala am na wala amul sande parce que tamit euh, comme suñu la journal bee ko bind xëy na moom am na fu mu sukkandiku ba bind loolu si sukk sukkandiku boobu ngay wax sax tey bu information bi génnee Pape Thialis Faye génn na def benn démenti si Leewtoo point net nee na moom doxul combat doxaalewul combat ki nga xam ne moo koy doxal combat sax muy Max Margam nee na moom woogu ko pour ne ko doxal ma bii combat nee na staff Leewtoo production bi nga xam ne Cédric Diédhiou moom moo ko jiite defaguñu sax réunion pour waxtaan si combat yi nga xam ne moom la ñuy fas yéene taxawal saison bi ñu jëm Babacar. waaw olof dina la meñ du lekk morom ba te ñorut <laughs> kon xëy na moom bañ ko waxalee rek. xëy na moom itam dindi waaw loolu la parce que nag moo ne maa ne da koo gën a wóor nday kumbaane nday kumbane maane daa gën a wóor kon Pape Thialis loolu ñu ko waxal moom démentiral na ko boppam ci Leewtoo point kon wax jàngu mu leer na moom ne na doxagul combat yónnigul ñi ko war doxal combat toogaguñu pour waxtaan ak ñoom ñi jiite Leewtoo production mu ñoom Cédric ak ñooñu ak ñu mel ni suñu papa Max kon defe naa kon wax jooju ferenku laayu na kon daal nañ jàpp ne kon moom ne na doxul combat actuellement fi mu nekk ni moom Pape Thialis Faye beneen information bu nu mënee jëlee aussi si sunu lamb nee nañu euh, assemblée générale bi nga xam ni mooy écurie Soumbédioune écurie Soumbédioune soo ko déggee moom la Boy Kaïré euh, di gérer nee ñu ki nga xam ni mooy Maawo nekkoon fa entraîneur nee nañu dàq nañ ko keneen ku ko remplacer nekk si direction technique bi moom ak euh, Boy Kaïré muy Rock Mbalax borom 120 prise yi. waaw loolu day ah euh, recruter roog mbalax defe naa pour mu yore sa écrit pour entraîner ko yaakaar naa ne ku ko def it dama naan sànni woo sa recrutement parce que li tax mooy am borom xam-xam la wax dëgg yàlla loo ko waaye mën a waxal defe naa ne ci côté technicité ak ko xam-xam dina jafe lool kon su mbéjun bu ñu ko recruter yaakaar naa ne am nañ recrut bu baax a baax a baax parce que tamit roog mbalax defe naa ne carrière am yëpp dina carrière am ku ne gis na technique yi mu doon bëre yaakaar naa boo fàttalikoo ko moom ak Pape Cissé ci moom laa njëkk gisee mbër bu la wër ndombo nga daan ko jëli bu rëy boobu ba mu ko daan kere ci stade Iba Mar kon defe naa na xam moom yaakaar yàlla na nekk seen njiglaay ñu wàcce maawo maawo itam donte wàcce nañ defe naa ne ku xam sumbe xam maawo ni mu ci activé ak bëgg ni mu ci doon yëngutoo vraiment encadré xale yi tey taxawu leen ba tey écrit bi toll fi mu toll ba champion yu mel ni jën kay rek ay bébé jën ak yeneen mbër ya fa ne ay Baaba Maal yeneen booy xale yëpp mën a génn kon defe naa moom itam defe naa bay na waaram waaye nag mbir mu ne rek xam nga yaam ma gën a xam ak na muy demee ak na muy doxee yaa ma doon doy doyatoo ma defe naa ne kuñ ko wax itam waaw jërul coow de man de boo ne maa doyatoo ma ak loo ma joxoon mu jël ko ndànk meeb ko delloo la ko ci jàmm ndax nag yàlla am na beneen yàpp gu jën ka suñ jógee nag si sunu lamb dañuy dem si observateur observateur nee na euh, combat Modou Lo un combat à maanaam entre Modou la amaabal Baldé ak Tapha Tine qui vient en embuscade maanaam tey jii su fekkee ne combat Modou Lo ak Ama Baldé Ama Baldé daa koolu caché buñ ko fay Ama Baldé daa euh, ki nga xam ne mooy Tapha Tine war mën a ñëw jouer les troubles fêtes waaw actuellement day benn combat ñetti mbër dina jafe <laughs> lu doy waar la li ko waral nag mooy xëy na promoteur bi comme ñu nga noon diggante ak Modou Lo yàgg na koo bëgg Sénégal itam di ko réclamer ñu xëy dox combat bi bañ na déggoon a ñëw ku waa kër ñu ne Ama Baldé waa këram ñoo des ci xëy na côté kase wala xaw ma wala boog yu demee ki noonu ba affaire bi nar a dëgër ñu ne kon nañu seeti Tapha Tine bu dee loolu moo am demoon demee noonu yaakaar naa itam combat Tapha Tine ak Modou lu valable la bu fekkente ne Ama mënta nangul lañ koy fay promoteur bi am na trois jëli Tapha Tine te Ama Modou ak Tapha dafa neex. Modou Lo tasaateen actuellement ku ko tëgg itam saa ne sa xaaj combat bu neex a neex ngay am li am solo nag mooy que ni ku mu ci doon sa wërsëg rek yàlla na am combat bi moo xam promoteur bi la moo xam mbër mi la waaye itam bëreeg roi des arènes defe naa itam ci Ama Baldé salance la ci benn ci roi des arènes bi mais salance la ci diggante mag Modou Lo parce que nit ñi réclamer seen diggante Ama ko mën Ama mënu ko Modou ko mën coow li ne gadd kon fi nekk nii daal yaakaar naa li ne seen diggante ci négociation nañ ko jéem a rapide gaawal te jéem a juboo bu loolu mënta nekk fast track fast track voilà ñu fast track ko suñ <laughs> loolu am na solo Babacar suñu jugee nag si observateur nañu dem fi nga xam ne mooy tribune bi nag nee ñu ki nga xam ne moo nar a ñàkk chance nag dëgg nag si VIP muy Gris Bordeaux nee ñu parce que ñu ko doon dox ak Ama Baldé mais cachet laaj dafa cher te bi nii Modou Lo moom dafa mel ni xoolatul ki nga xam ne moom mooy Gris Bordeaux mi nga xam ni moom moo ko daanoon. waaw Modou Gris mu nekk nii boo ko waxee sax xam naa ne néew ma du du làmb yoon ba ñeenti yoon waaye nag nekkul lu nga moom la amateur yi di xaar tey Modou Lo Gris waaw loolu moom xam naa ne xaaruñu ko ci làmb ji actuellement ñu ngi doon xaar parce que làmb ji dafa am nu muy tëddee ñu ngi doon xaar Modou Gris Bordeaux ak Ama bu ko Gris bu ko Ama rëccee nag ba dem leneen ah Gris dama naan ñàkkagul que lu tax mooy dafa daan Bombardier Bombardier ngi fi te bëgg naa fayu moog Lac de Guiers numéro 2 combat dàq ko combat jànq la te yaakaar naa war nañu wax ci combat boobu Gris Bordeaux Lac de Guiers numéro bu neex day combat faal ñaari xeexkat waaw ko suñ nag si bëree dóor bi dañuy dem si bëree simple bi Jax moom dafa mel temps yaramam dafa tàng ginnaaw mu jógee arène nationale def fa mise 2 millions mi ngi delluwaat mi ngi dem terrain gaal gi euh, dimanche bi nu nu jëm teg fa nag million cinq 500 Babacar. waaw loolu la da Jax rek xam nga li ma la wax rek xam nga Jax moom alam lébu la moom du defantu soo bëggee dégg dégg xam naa nag <laughs> loolu moo tax mu jógee arène nationale ak 2 millions. mu ne xaaral comme gaal gi laa jëm ma yokk ca 500000 def ko 2 millions 500 muy loo xam ne tamit dañ koy sali rafetlu ko parce que mu ngi yokk lit simple bi yaa ngi dégg mu yokk bu baax a baax a baax ndax mise yi mu ciy teg vraiment ci yenn endroit yi yaakaar naa ne ku bëggul sa sport dëkk te nekkoo vrai patriote doo ko faral di def kon ñu koy ñaan rek lu mu ciy def mu koy réussir moom bépp promoteur bu nga xam ne tamit yaa ngi teg lit simple ndax ku ci rek yaa ngay def la nga mën ca sa ngay teg 500000 ñii 1 million ndax su ma jumul mi ñaan sang waaw même jour ba un million waa xam nga loolu lépp yokkute la mi ngaan moom tamit ñu koy ñaanal yàlla mu réussir ko gis nañ kera paayu ñoom suñu papa nguur semu juuf ak ñëpp a ngi jéem ay Ablaye Diop suñu production xam nga ñoom ku nekk daal kon daal vraiment li simple bi tamit mu ngi dox kon mbëri daal li ma wax sànq rek waaye nag dimanche xalaat naa dinaa ngemb yàgg maar ndax wax ji métti na te weer wi sori na te vraiment soxla nañu xaalis te yàgg mi am naa su ma ko ngembee dina ma war a indil dara ndax Moussa mais day yot du ma ko wóolu nga am <laughs> mbër bu ñool dañuy en général mbër moom du ñool da gàtt am dagar bëre doole. Babacar ki nga xam ne moom bëri na doole ba nga xam ne journal bi yëpp ni ngi koy coow muy Serigne Ndiaye 2 journal euh, journal record nee na dina des si taarixu làmb ne ñu mooy premier mbër bi nga xam ne moom moo njëkk a gagné euh, lutte simple fay si arène nationale. waaw dama la ko waxoon keroog rek dama leen li arène nationale fa njëkk a tëgg mooy promoteur ba. ba dëkk jàmm gën moo fa njëkk a tëgg lit avec frappe yaa ngi dégg marqué empreinte am ñu ne déet ne waaye ku fa njëkk a tëgg lit simple ñu ne jàkk si la ku ko njëkk a gagné Serigne Ndiaye numéro 2 loolu histoire da koy bind loolu record bind juumul waaw loolu moom histoire na ko jàpp moo fa njëkk a dugg comme mbër gagné fa tournoi ci lit simple. Jax bu fa njëkk a tëgg lit simple waaw kon loolu am solo la. ka nag si kàddu yooyu leen tàggoo lay jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay Merso borom anniversaire bi euh, nuyu sama doom Mohamed Diouf démb jox na ko cadeau anniversaire na ko 100 francs tàngal euh, di nuyu euh, ah, <laughs> Dadi Gueye di nuyu aussi Astane ne dèjà vraiment depuis Parcelles Assainies xam naa vacances yi moom léegi mu jeex chéri Khadija Diallo nuyu samay doom Mame Diarra Penda Bébé Fallou Moussa Rokhaya Eva Diallo nuyu Aïda Diouf ak Aïcha Faye madame Niang waaw noonu nga ko waxee ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp Aïssa ñu ngi koy nuyuwaat di ko ziar di ko ñaanal jàmm ñoom Aïda du ñu fàtte kenn matu jaxum pa joor ñoom fleur képp ku ne ci kër gi rek séddoo nuyu nañ ñëpp masaar ñaanal ñëpp jàmm ba ci tonton jaw ah du ma fàtte biram ñu ngi séeri ndaak boroom mu njaan di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mi di nuyu tamit ñi nga xam ne ñu ñuy suivre xam nga ñoom tuuti yaay Sarr ñoom Khadiroos Ndiaye ñoom Ousmane Diop Abdoulaye Mbaye gaa yëpp ñu ngi leen nuyu xam nga Mamadou Kaolack Diallo duñ leen fàtte Fallou Petersen di nuyu tamit waa marché ku mel ni Abdou Diouf maa ngi koy nuyu marché Tilène ñoom Baye Mor Waaj Ali ñoom ñëpp naa leen may solal tamit du ma leen fàtte Ali bu yankaaw ci la bokk ki nga xam ne nii moom mooy Xaadim Mbeng ca marché sàndaga ñoom ñëpp di sama ay waay di leen nuyu di leen jaar ak Zal Fay Tilène ñaan ñëpp jàmm di wax ne Sénégal daal yàlla na fi jàmm yàgg te sax fi barak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais nag nañ fast track affaire yi surtout dat yi